téléphone 77 394 73 73 agence Techno Habitat mooy ca Habitat offert. immigré yaa ngi yëngatu diaspora baa ngi yëngatu footballeur yaa ngi yëngatu artiste yaa ngi yëngatu sëriñ saa ngi yëngatu lu yëngu nekk la ko yëngal moo ko ëpp doole président Ousmane Sonko plus ñu lay saaga plus ñu lay gën a bëgg. ñu lay jéem a salteel plus ngay gën set suñuy bët plus ñu yónni ay nit pour suufal la plus bi dina gën a yëkkati ngay sonne si kaw lu yëngu nekk la ko yëngal moo ko ëpp doole hasard amul fii di fi nekk duñ ay bétail électoral merci beaucoup merci beaucoup ñu bàyyi mooy wi nga dem fay nite nitelu ci quelques secondes lañu lay wan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 ñëpp l'histoire retiendra que mooy li ci yées kon bu lii amee mu génn ci te yàlla xam na ni jaaxle woon na ba ni Sénégal di toll yëpp te moom mu ne mooy président de la république périmètre am woon Mermoz palais de la république te ay chars de ko doon escorté waaye Sénégal yëpp a seede weesoo ba léegi. ñun li ñu diglante woon ak kilifa yi ñun wàccoon nañu ak ñoom ndax boobu ba léegi ñu ngi ne tekk tekkaaral kenn dégguñu ñu wax kenn dégguñu ñu xuloo kenn dégguñu ñu saaga kenn dégguñu ñu xeex waaye njéeréeram yi njéeréeram yooyu nga xam ne ñoom ñëpp bi mbir jaxasoo ñi yoon woon ci sous yi ñu dem tëju ci hôtel yi ñu libéré leen ñu dem wër plateau yëpp xëyee saaga gontoo xaste ak di menacé moom ci boppam nee na yeeyaa yooyu ma ngay def turne ay centaine yoo xam ne suñu alalu réew la ñun ak ay oto yoo xam ne suñu oto réew la ak carburant boo xam suñu carburant réew la dem di yëpp ay car rapide ak ay njaganjaay pour dajale ay nit nee na pour dalal xelam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 waaye comme da ngaa ndóolal réew mi ba nit sonn koo jox 2000 francs teg oto mu yéeg dem mu ne day dalal xelam waaye li gën a yéeme du loolu de fu mu dem taxaw tëkku Sénégalais fu mu dem taxaw tëkku Sénégalais yi te bi mu jaaxlee ba jaaxle moo woo kilifa diine yëpp ne leen wax leen wala làmbaay ñaaw nit da am jom nit dafay am jom ñàkk jom weesuwul bi ñu lay làmb lamb yu métti yaa ngi tëju fi nga tëju fu ne nga woote fa wallu bi ñu demee ba may la tuuti oxygène nga ñëw di dëkku nit ñi di leen menacer waaye ma dalal xelu Barthélemy Diaz li ma waxoon waxaat ko ma ci Sall tuuti na torop torop torop ci teenu ñun dama ne nekk ci bépp élection bu ñu bëgg a nekk candidat réew mi réew mi may leen ma rek ma yeggali parce que 19 heures lañ may te dañu bëgg a nekk ñu discipliné dama ne réew mi benn sénégalais rek laa xam ni tey ñëpp xam nañu dootul doon candidat ci réew mi te sénégalais boobu dafa am tur am sant mooy kan. Macky Sall benn sénégalais la amul beneen moom lañu am firnde bu leer nañu ni réew mi dootu fi nekk candidat wala dina dox suñu kaw cadavre pour nekk candidat ci réew mi kon ñu wax leen ni état de grâce bi jeex na te dafa am loo xam ne dootuñu ko nangul kenn.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 foofu Kaolack laa ko njëkk a dànkaafu nee naa ko dinañ ñëw def un rassemblement national à Kaolack te bu soobee yàlla ci lu soobee dama leen di lim ñi nga xam ne ñi nga Ziguinchor muy ki ñuy wax Demba Diédhiou di Abdourahmane Diallo di Mohamed Mané Babacar Diagne ak ñi des Diourbel muy Ndiogu Diop ndongo Diop nga xam ne moom kaam moo ci gën a doy waar ak ki ñuy wax Ablaye Fall ndax ñeneen ñaar ñi bàyyi nañ leen dañ leen leen ñu ngi leen di jox ultimatum parce que ñun ñi fi nekk ñëpp ak ñi jotul teew ak ñi génnoon di manifester yëpp dañu war a xam ni ñun ñëpp on est le même gis nga bu ngeen engagé wu ci benn direction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 ñuy wax nag ni au-delà de li ñu woote ci ñu libéré ko jumtukaay xanafee ko ëppoon doole fuuf ëpp ko jumtukaay ah, ak beneen ak beneen ak beneen Omar El Béchir bi nekk Soudan moo ko ëppoon doole fuuf ëpp ko jumtukaay keneen ak keneen mais un peuple souverain bu jóg ne doyal na te ñi mu yaakaar ñëpp nag ci peuple bi la bokk policier ci peuple bi la ñu bokk gendarme ci peuple la ñu bokk la ñuy dund lañuy dund ñoom jafe-jafe yi ñuy dund lañuy dund kon su dee loolu lay naxee boppam xam ne la jum kon ñu leen di woo ñu leen di woowaat ay menaces am yëguñu ko ñun on pas de leçon à recevoir d'eux nee na terrorisme waaye la seul terroriste mooy ki ak ku dem recruter ay nervi ñu dem di tiire ci ay xale ba ci treize kooku mooy terroriste nee na des gens qui sont soutenus par l'étranger ñëpp xam nañ ni le seul boo xam ne préfet étranger la nga xam ne lu am day daw jëm jëm jëli ndigal taal avion def ci suñu kérosène jël ndigal ñëw yéen xam ngeen mooy kan mooy kan. léegi nag nee na respect des institutions waaye ñun fii la ñu newoon bi muy taxaw naan on va déloger Ablaye Wade ñun waxaguñu loolu. kooku suñu yéene moom daf ñuy jox ay conseil est-ce que est-ce loolu na ci moom.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 ndax loolu du fi guléet ñu ne loolu doyetul ñu ne loolu doyetul léegi comme loolu doxul te gis ni nag am na benn mbir moo xam ne nee nañ ku ñuy wax Mark Zuckerberg moo ko fi créé waaye dafa mel ni yàllaa ko andi rek muy xéewal nee na léegi boo ko tere nelaw waay waay waay waay dama ne dama ne nit dafay am jom te di fàttaliku démb ndax la magie du clic et du clac du man maa ko créé fi du ko fi waxoon bi may opposant kon dama bëgg ñu wax ni yéen ñëpp lay waxal sama frère Bougane wax na lu jëm ci nu ñuy dëgmale élection yooyu M2D du plateforme politique m dafa di plateforme boo xam ne dafa dajale ay mouvement citoyen yéenay ndeyu mbili gi yéenay ndeyu mbili gi du ñun yéeneen a nekk ci terrain bi di def porte à porte yéen nekk ci terrain bi di wax ak sénégalais yi lenn rek lañ leen di ñaan na ngeen am confiance ci seen i leader politique xam leen ni lii ñu sumb te ñu daj ci lu ne te ñu ñàkk ci lu ne duñ ko mus a tayle duñ ko mus a yàq. duñ ci mus a def loo loo xam ne lu koy yàq la un de cinq bu cinq ans yi jeexee bés bu mu jeexee bés boobu laay pare ñoom waajal nag waajal nag ànd ak ñi ñu ñi ñu mën a àndal yëpp ci opposition pour que assemblée nationale bii nga xam ne mooy li gën a tilim li gën a salte lu ñu mus a xam tey ci ci assemblée nationale pour que ñu raser ko